marhaban ginnaaw bu ñu ko jëfandikoo téeméeri fan TER bii di train express régional daal dinay noppiloo ñi nga xamante ne ñoo doon yëkkati ay critique di ko jëmee ci moom yéeni kaay la soleil moo ko xaatim ci xëtam gu njëkk ginnaaw bu mu sukkandikoo ci jàkkaarloo mi dox ci diggante ay ministre gouvernement bi ak taskatu xibaar yi yéeni kaay bi nañu Mansour Faye mi ñuy dënk wàllum dem ak dikk gi daal defu bilan téeméeri fan yi ñuy jëfandikoo train express li mu xamle moo di ne juróomi millions yu doomi aadama daal dinañu jëfandikoo boobu le train express régional li mu dikkee ci koppar ci xayma war na naa toll ci ñetti milliards yi franc CFA yéene kaayu laas dëggal xibaar bi ne TER bi ci yile téeméeri fan yi mu daw juróomi millions yu doomi aadama daal nañ ciy dugg mu daal di jur lu tolloo ko ñetti milliards yi franc CFA ministre Mansour Faye mi ñu dénkoolum dem ak dikk gi ba tey ci biir yéene kaayu laas daal na xamle ni TER bi bi mu tàmbalee daw ak léegi bés bu yàlla sàkk lu tolloo ko juróom fukki junni ci ay doomi aadama ñoo ci dugg jëwriñ bu ñu dënk wàllum pétrole ak gaz di Sophie Gladima moom itam daal dinay janoo ak taskatu xibaar yi ni kii dem ba bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay Le Quotidien daal dinay dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci wàllum énergie gi bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi moom Sophie Gladima daal di xam ni Sénégal daal di dugg ne léegi dootul bàyyiti privé bi dong muy jëfandikoo marché hydrocarbure bi Petrosen TS dina dugg ci biir capitalu SMK di yemb jëwriñ bu ñu dénk wàllum pétrole ak wàllum gaz daal di xam ni Sénégal mu ngi ak réserve bi mu mën a jëfandikoo fii lekk ñaar fukki fana lu ñeel rupture di maanaam essence gasoil ak yu ñu njortu yoon ci boobule fànn mbirum astu soxna mi ñàkk bakkanam ci Louga a mucc yéene kaay critique mu ngi xam la ci taxawee laata muy addu ci wàllum tàggatu gi di maanaam formation personnelle bi ak itamit tolluwaayu bi ya yéene kaay Walf Fadjri Quotidien daal di xëy ab gëstu ya jëmale ko ci politique sociale njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw bu mu nasee ay pexe ngir njog di maanaam prix produit bañ a yokk ba jéggi dayo moom président Macky Sall nag fu mu mu toll nii daanaka sës na rëkk ci miir bi ya politique sociale am bi ay rëkk-rëkk daal dinañ ci tab bi li ko waral du lenn lu dul ay njëg yu yokku ci àdduna bi jafe-jafe koppar waral loolu lépp tax ba jamono jile tembe subventionné ay njëkk dafay doon lu jafe lool ginnaaw kérosène gi njëgu farine gi yéeni kaay Walfadjri ma ngi artu di xamle ni yéneen i njëg dinañu yokk lool bay jéggi dayo ci wàllum politique yéeni kaay Vox Populi daa dina ñëwaat ci pexe yu majorité présidentielle gi laal ngir rocc ay maire yu falu ci élection locale yu ñu weesu ci tuuru bi suñu naatango yi ne ñu président Macky Sall mu ngi woy ba léegi di rocc ay maire ci coalition Yewwi ak wàllu Sénégal ku ci mujj di ab maire mi falu ci tuuru coalition Yewwi askan wi fale ci Bambey mi président Macky dalal ni ki démb ci palais moom moomee sax bu ñu ci Vox Populi yi daal dem fekk si président Macky ci biir APR yaa ngeen jëf